ñu jox Cheikh sàmba mii mu ubbee ko alquranul bu ko ubbee alquran nag ba noppi ñu doog def présentation bi wax leen ñi fi teew ñiy jël kaddu jël kaddu saafonte gi yéen ñu ñaanalante incha allahu taala bismillahi rahmani لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا تجتاي بن أبي القرآن جتاي بوبي يلا من نكو بركل yal na yàlla barkeel jotaay bi ci daraja yi ay yi nga xam ni yëkkati nga ko fi ngir jëmm yàlla mbooloo mi ñu présenté leen délégation bi nga xam ni moom la sëriñ Ahmadou Touré àndal ñëw tey fii ci Touba Toul sëriñ Thierno Ousmane lii tabaarakallaahu mi ngi ni toog di mag ci sëriñ bi ànd naag moom ak docteur Mademba Njaay ak sëriñ Ahmadou Sougou di sët ci Cheikh Jiri Wadane Sougou ak imam Bachir mu doon imam ca Dubaay ak Cheikh Jibril li ak Cheikh Omar Sall di borom xam-xam ca Thiès ak Cheikh Ibrahima Niass mi toog ak Serigne Gora Siis ak Babacar Fall ak Aziz Konaté Alxaaji Fall Silla Mamor Ñing Mamor Ñang Ibrahima Diop Ismaïla Diouf ak tabarakallahu Assane Diop ak Samba Diop moom it nekk directeur commercial ak Mouhamadou Nassir saw ak Serigne Issa Babou ak ñi mu àndal xam ngeen ni ci biir délégation yooyu soxna yu tedd ñu ngi ci muy soxna Rahmatullahi sil soxna Mati soxna Fatimatu Touré ak ay rakam yëpp teew na ak alxaaji Cerno Yunus Jeng barakallaahu ñoom ñëpp ànd nañu ak sëriñ bi ñëw ak ñi nga xam ni tudd nu leen te ñu bokk ci délégation bi yaa dëkk boo xam ni Touba Toul lañ koy wax maam Cheikh Anta Gaawaan borom dërëm ak ngërëm borom jannati ilal jannati dafay am cër ak kan tafsir buuba silla tafsir buuba silla njabootam yaa ngi ni toog ñuy seex Serigne Touba waaye fii nga tabbi tey Serigne Ahmadou al imam Serigne Mamadou Mbacké moom Cheikh Abdoul Khafour moom Cheikh Modou Mamoun mu maam Cheikh Anta Gaawaan mu ngi nii soriwul tey jii mën noona wax ni mooy kilifa Touba Toul kii tariixa Cheikh Amadi Tidiane a Serif la yor yaakaar borom faydu bi Cheikh al Islam barxaama nga xam ni kii day tàllal mbalaan mi ñuy naasre xaq bil xaq kii mooy rek istixfaar kii mooy dóor laa ilaha illallahu muy dugg ci xolu jaam yi ñu yëg yàlla kii moo fi nekk seex al tax ma leeral loolee daa bokk ak soxna jaara kii aalibun tabara mi ko jur muy maamam moo jur maam buso maam buso moomee moo jur mamadou awa maam Bousso Mamadou awa maam Bousso boomee moo jur alxaaji bu Bousso alxaaji Kara Bousso moo jur soxna Bintu Bousso soxna Bintu Bousso moo jur Serigne Boubacar Touré mu jur Serigne Ahmadou Touré xanaa leer na kii toog baayam Serigne Saliou Mbacké mi ñëpp xam ci yërmandeem bu baayam Moussa na ñëw kër Serigne saaliw ba waxtaan ak moom Serigne Saliou Mbacké ci boppam dana gunge baayam ba ca buntu kër ga taalibe yi ci boppam daal di yéemu daal ni li Serigne Saliou def de musu ko defal kenn li tax mu def ko mooy baayam dafa doonoon walliw dafa doonoon nitu yàlla waaye dafa bokk ak nag Serigne Saliou ndax ñoom xam nañ li ñu bokk Cheikh Ahmadou ku daj ba dajatoo daj bay dajale ñàkk loo ko dajeel si ahmadou silat ma du suuru xaftaan ceerno ousmane yaakaar naa ne lii laa doon ubbi ngir nga ubbi jotaay bi waaye ngeen ànd ak seen mbokk sëñ ahmadou sugu di sëtu seex jiri waadaan seex jiri waadaan seexi sëñ tubaa yi la woon bi muy tuddee sëñ tubaa ay doom boobu sëñ tubaa ñëwagul jamono kii maamam bi muy tuddee sëñ tubaa doom boobu sëñ Tuubaa feeñagul ci sayir tuddee na sëñ Tuubaa fukki bamba ak ñaar maami kii moo jur ahmadou tasrif mu jur sëriñ mamma sëñ mamma moo jur jëmm ji toog kii mooy amal journée culturelu Cheikh Jiri Wadane Sougou chaque année ca Sorano kii maamam lañ ko fayee maamam ahmadou tasrif tur ci tur sëñ la maamam moo ki indaale jamono kon Thierno Ousmane yow la ñu déglu nga waxtaan ci jaam yi tuuti ñu déglu Baay bu noppi ñu déglu sëñ Ahmad nee na aousu billahi min alseytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi nee ñu ngi ñaan yàlla ne lépp luñ fi wax ne mu nekk lu nuy jariñ mu nekk sabab boo xam ni moo ñuy gunge ba ñu taseeg sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cerno ne ñu ngi sant waa Tuuba Tuul ne ñu ngi leen di gërëm commencé woon na wax sànq ci kaw ba joxe ci misaal makka ak madina yenent bi bi muy jóge makka waay waay bëggul woon a jóge makka waay waay comme yàlla fale moo ko gënal mu ne ko yee eh, Moustapha demal ne bi mu demee ah, ni mu ko teeroo ne ni ko waa Medina teeroo ne foofu la cofeelam dugg ci Madinatul Munawara ne fekk nag booba yonent bi xamul woon lu muy fekk Madina waaye ñoom ñii tey bu ñu fi ñëwee. tey jii bi ñu fi ñëwee. xamuñu woon Touba Toul. xamuñu woon Touba Toul. xamuñu woon nitu Touba Toul. woon nag nitu Touba Toul. waaye nekk nii de. waaye ñoom fi mu nekk nii. xam nañu Touba Toul. ca noonee xam nañu Touba Toul. nañu nitu nañu nag nitu Touba Toul. nii rek. nii rek. teere woon sayyiduna Muhammad muy sallallahu alayhi wa sallam ca nu ne bi ñu dugg fii ne laa ilaha illallah moo leen teeru te sayyiduna Muhammad toog na fukki at ak ñett di xeex pour baatu laa ilaha illallah jóg baatu laa ilaha illallah buñ la teeroo laa ilaha illallah. te nu ne buñ la teeroo laa ilaha illallah. loo santoon yàlla. waay waay loo santoon yàlla. nga war a dolli. ne ñu ngi sant alxaaji taala mi toog di bàyyi Seydina Omar. góor gi alxaaji taala ne alaaji cenno neen ñu ngi lay sant ci sa taxawaay. ne Omar mënoon naa am bëgg-bëgg bi waaye waaye du ci taxaw ne bu boobaa bis bii du demee nii ne du rafetee nii ne du taaroo nii lépp yow ne doom ju baax joo gis ne ñoom li ñu jàng ci alquran baqara ba naasi muy baqara ba ñu baax ñëpp ñu baax ñëpp yàlla bu leen tàgg yàlla bi mu leen di tàgg ci seen la leen nee ci seen bàyyi rek la leen di delloo diw suñu jaam ju baax la woon nee diw suñu jaam ju baax la woon ñu jox doom ju baax nee ñu jox ko nag doom ju baax moom mu góor gi cenn nee na yow yaa baax Omar Mbaxam. nee Omar Mbaxam. xawoon na yé xawoon nañu yéem. nee xawoon na leen a yéem. waaye bi ñu fi ñëwee tey. waaye bi ñëwee ci kër gi. gis li fi gis. gis lii ñu fi gis. yéematu. ca nu ne ne yéematu leen wallaahi. xam nañu mbaax bi. waaye waaye xam nañu mbaax mi. fi mu jógee nekkate. wax na sànq. wax na sànq. Omar. nit ku baax la. nekk nañu Dakar. ne ñoom nekk nañu Dakar. musuñu gis ci moom. musuñu gis ci moom. lu nu ko xeebe. nekk Belgique. ne fekk nañu ko ñoom fa mu nekk ca Belgique. dara dara changé wul ci moom. ne du ci diine. ne du ci nite. ci mbaax. ne du ci mbaax waaye waaye lii ñuy wax tànk kanam la am waaye amul tànk gannaaw ne yàlla boole ko waaye waaye ak jëmm ju baax ji toog di imaam Ahmad ne imaam mi toog mbaaxam ca na ne mën na cee wax ne digganteeg ak moom ne du tey ne ba ñuy jàng la nee na boobu ci amaguñu dara ne kenn tanewu ci sa morom ne pour tënk ne imaam mi toog ay jikkoom ñu nekkee ci daara waay waay bu ñu nekkee ci daara ji. benn boobu rek laa ciy wax. benn boobu rek la ciy wax. te moo gën a tuuti ci ay jikkoom. te moo gën tuuti nag ci ay jikko ëpp nañu ñaari téeméeri ndongo. nee ëpp nu ñoom booba ñaari téeméeri ndongo. at mu jot. dañu doon. dañu doon. def concours. def concours. toll ni fukki ndongo. lu toll ni fukki ndongo. mokkal alquran. mokkal alquran. ñu defal leen feet. ñu defal leen feet. di leen jox ay kado. nee di leen jox nag ay kado. ci biir ndaje boobu. ci biir ndaje boobu. dañ doon tànn. dañ doon tànn. kan moo gën a yaru. kan moo gën a yaru. kan moo gën a déggu. kan moo gën a déggu. moo gën nangu yónent. cetera et cetera jikko yooyu. et cetera et ak jikko yooyu. waaye at bu jot. waaye at mu jot. lu ñu gënoon yéem. nee a yéem. année. chaque année. ah mi. waay waay imaam mi. moo doon jël. moo doon jël. kado kado. ki gën a yaru ci daara. nee ki gën a yaru ci daara ji. ak ki gën a dëggu ci daara. ak ki gën a dëggu nag ci daara ji. lu ëpp juróomi at. nee lu ëpp juróomi at. yu tegaloo yu tegaloo. moom moo ci boppam moo koy def. wallaahi bu ko jëlee. imam ne. Cerno ne bu ko jëlee. amul benn taalibi. amul benn taalibi. wala magu daara. wala benn magu daara. buy taxaw buy taxaw. contesté loolu. nee na contesté loolu. kii dañ koo faral. waaye ni kii dan koo faral. liñ ko jox liñ ko jox. yelloo ko yelloo ko. musul nee musul am. loolu mooy wane. ne loolu mooy wane ni. moom imaam mi toog. lu mu am lu mu am. yaram yaram. ak dëggoom ak dëggoom moo ko ko may. incha allah. am ak ak papaam. waay waay li ma wax ci diggante sëriñ Touba maamam maam ma busu mi jur soxna jaara ak Ali Tabara Buso muy maamam li ma wax ci seen diggante ñam ñaar. lu bokk. nee li ñu bokk papaam daan na ko doxal ba mu mat sëkk daan na nag ba mu mat sëkk taawam bu góor taawam bu góor mooy magu imaam mi mooy magu imaam mi Modou Moustapha la tudd ne Mouhamadul Moustapha Mbacké la tudd te moom la ko tuddee te Cheikh Mouhamadul Moustapha te Moustapha Bassirou Cheikh Moustapha Bassirou moom la ko tuddee moom la ko tuddee xam ne diggante bi waaye waaye nga xam ni diggante bi du tey du tey allahu akbar waaye waaye imam ne diggante bi du tey ne Cerno ne ñu ngi dellu di sant yàlla li ñu war a wax bari na waaye dafa guddi jotaay ju mel nii xaj Cerno ne ne jotaay bu mel nii musuñu ko doxal benn nit ne musuñu ko doxal benn nit moom nag moo ko liggéeyal waaye waaye ne Omar ci boppam moo ko liggéeyal boppam waxee Omar rek. waay waay ne bi ko imam waxee Omar rek. damaa dem Belgique. dafa dem Belgique. Omar jël jour bisam lëm. ne Omar jël jour lëm. nekk nekk ak moom. li ma bëgg. ne li mu bëgg. ak li soxla ak li mu soxla. fi bëgg a dem ne fi mu bëgg dem. Omar ne ma ñu waay waay Omar ni ko Thierno nan dem. bàyyi yitteem yitteem bàyyi liggéeyam yëpp. loolu nag loolu nag nekk lu rëy ci man nekk ci moom mii. ma toog di xalaat mu toog di xalaat. may wax waay waay muy wax. kii teraanga bi ma defal nii. waa kii teraanga ji ma defal nii. kañ laa koy fay. waay waay man kan kañ laa ko koy fay. moo waral bi ma imaam waxee ne moo waral bi ko imaam waxee bés bi. mu ni ko li ma doon li ma jàppoon. mu ni ko mu jàppoon. dina ko bàyyi. xam naa ne ne parce que xam na ni li ma doon xalaat li ma doon xalaat li ma bëggoon def ak li mu bëggoon a def bi ma ko defee bi ma ko defee ànd ak imam fii waaye waaye ànd ak imam fii dina sedd xolam ne dana sedd xolam waaye waaye ne mu bàyyi lépp ñëw ànd ak imam ak délégation bi mu àndul yàpp def nañ présentation def nañu présentation bi ñu ngi sant ñëpp ñu ngi sant ñëpp ne ngërëmal bàyyi bokk amee doo tiit doo ragal di sàll doo tiit doo ragal doo doo tiit doo ragal allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ne kaddu gii muy yëkkati ne mën naa wax ni du ñaar kenn rek ko koy wax waaye nee na suy wax ci làmmiñu imaam Ahmad Touré mii ci lay wax li war a loolu mooy ne ñoom duñu ñaar kenn lan ne ànd bu yàgg te yàlla rek tax ànd bu yàlla gërëm ànd bu yàlla rafetal ne ànd bu yàlla génne ay tànneef ne ànd boobu yàlla rek moo fi kooku di wax du ñaar kenn rek mooy wax ne di sant yàlla di santaat yàlla bu baax ne ci diggante imaam Ahmadou Touré mi toog nga xam ne ñoom ñaar tolloog ñaar fukki at ñu ngi ànd waaye waaye nee na mosuñoo réeroo mosuñoo nëbboo ne lu imaam yëkkati ah Cheikh Ibrahima mi xam na ko waaye lu Cheikh Ibrahima yëkkati imaam xam na ko. ne bu fekkee ni dañoo waxe nit dafa mbaax ne baax rek foofu la mën a yem mun nu ci dolli leneen. nee na mbaax du lu ñuy for ci nepp ci mbedd nee na mbaax dañ koy namp. ne barke nag dañ koy ñakkal. nee nit munoo am barke mukk te jaaro ci sa keppaaru waajur yi ne yàlla bi mu ko bëggee dimbali daf ko jaarale ci yoon woowu mu am ngërëmu ñaari waajuram waaye waaye sufiyanke bu mag boobee nga xam ne moo ko jur di alxaaji Boubacar Touré moomu ak ndeyam ju baax jooju nga xam ni moom la ñu bàyyi ca kër ga nga xam ni laata muy génn dafa tàllal loxoom mu ñaanal ko muy soxna may Mariam Sall waay waay waay ne imam nii rek nga war a mel ne Omar nag danañ sawar wax ci moom li am fii li nu gis fii li ñu ñëw fekk ko ci mbokkam yi ne waxoon na imam Touré mii waay waay Omar jàpp ko ku baax la xale bu jullite la xale bu jullite la ku ragal yàlla la ku ragal yàlla la xale bu jub la ku mën a jokk mbokk la am taxawaay ci imam Touré ne moom wan nañu loolu te gisuñu mbokk bi ne bu fekkee ne wan nañu loolu te gisuñu mbokk bi ñëw fii loolu firnde ko ñu ñëw fii loolu firnde ko daf ne moom lam ñu doon wan du copie ne daf ñu dañuy wax ñoom la leen lan lan la mu leen doon wan nee na loolu photocopie ne du copie nee na réalité bi rek la ñu indiloon nee bi ñu sore seen dal jóg yombul daje yu mel ni yombul daje yu mel ni yombul nee soo gisee ñuy wax te yàkkamtuñu ci li ñuy wax daje yombul te li ñuy wax ku ne mën nga ci jëriñu ba ñu mën a nee bu ngeen gisee Omar di wax lu baax di def lu baax ba ñoom ñu mën a jóge Dakar ñëw ci biir mbokkam yi dañoo bëgg ñi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk waaye dañoo bëgg ñi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi muy ay baayam muy ay baayam muy ay magam muy ay magam muy ay rakkam muy ay dëkk ndoom ay dëkkandoom muy ay doomam ñu yiramtal ci jikko googu ñu am ndax mu ñu mel ni waaye waaye ñu yiramtal ci jikko joojee nga xam ne am na ko ngir ñu mën a mel ni moom nit bëgg na mel ni mu mel nit bëgg naa mel ni moom te yombul. doom doom soo ko juree ñaar rek nga ci bëgg. ñaar ñaar yooyu bu dajee li ci des rek da nga koy jiitu mooy ragal yàlla jiitu ragal yàlla. ragal njub. la dafa jub. waay waay koo du mën a nekk ci moom. ñaar yooyu dafa nekk ci waaye góor gi taala sunu tànk yi tey nee tànk jokk mbokk la tànk feddali kollëre nee tànk pour ñëw ziyaara la nee di la wax ni fii ñu ñëw sunu kër la ci lañu bokk naam xat-xatu jamono nu jàpp waaye lii lu ñu yàgg bëgg la li la wax nag njaboot gi sa njaboot la ne Omar sunu Omar la ne yow jur rek nga ci am fii ak ñoo ngi dund di leen fasanteeg moom kolere ba ilaa yawmal qiyaam di la ñaanal yàlla guddal sa fan yàlla may la wér yàlla dëgëral la yàlla wattu la yàlla aar la yàlla yéer la yàlla wattu la yàgg say mbokk yëpp dëkk bi yàlla def fi barke yàlla def fi barke yàlla def fi barke ci barke yonent bi sallallahu wa sallam ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul barke mag ñu baax ñu ñu mel allahumma salli ala Muhammad wa sallam ci andona ñu ngi sant di gërëm sëriñ bi nekk ci dëkk bi ne doomam ñëw na muy sëriñ Cheikhouna mi toog waay waay bu ñëwul war rek doy na ne ñu ngi koy sant bu baax ñu ngi sant Serigne Khadim Silla mii toog di sa tub tafsir boobu Silla min fi ñëwee ba léegi mu ngi ñoom ñu xam ni rek tee na affaire bi jàpp na ne mbir mi mbiram la ñu ngi koy sant bu baax loolu la fàtte woon ne mu ngi jégguluwaat bu baax kon kàddug sëñ Xaadim la ñuy ànd na ak mbokkam yu baax yu ñu lim léegi muy Cheikh Abdou Silla di doom ci sëriñ màdd Silla mi nga xam ne tey mooy xalifa maam tafsir bu muy sëñ ci la tafsir yàlla na fi yàgg te wér ànd na ak rakkam muy sëriñ Ngoni Silla moom itam ni ñu ko waxe léegi waaye it ànd na ak Baye Cheikh Silla ak man mii nga xam ne maay ku doye di nga xam ne nekk seenub génn kàddu gi jaar ci man doonte lott naa ci jottali ko muy kàddu yoo xam ne kàddu yu cant la sant nag dégg naa léegi Cerno Mali mu ne bés bi bésu cant lañu ko tuddee kon ci wax juju rek lay tofaan di yëkkati kàddu yu cant yoo xam ne dafay bàyyikoo ci sëriñ xaadim ak ñim àndal sëñ xaadim nee na cant gi da koy teg ci ñeent wala juróomi tomb ngir tënk jëkkanteeg waxtu waaye day mel ni timis mi ngi waaj a jige kon dafay laaj tënk ko ci maanaam ak déggin waaye ni ko bëgge yëpp doo ko ni mu ne sëñ xaadim nee na ki muy jëkk sant mooy way jur yi nga xam ne ñoo seq jëme ji waral bés bii muy sëñ Omar Ngom ji doom ci maam taale mile ndax ne na doom dafa am ndey ak baay te itam doom sori lool ci diggante ndey ak baay te Omar seq ak moom lu rëy loo xam ne bu koy wajuram mayul woon loolu du ko mën a am ci moom kon li mu seq ak Omar lay leeral waaye li muy rafet rafet rafet su ko kilifa yi xaataloon ci Omar du mën a am loolu kon maam Talla ak sama maam na koy kan sëriñ xaadim ne ne mu ngi leen di sant bu baax can goo xam ne xam na fi mu tàmbalee waaye xamul fi mu yem ngir tënk buñ ca bàyyi ko ne na itam mi ngi sant mbokki Omar ndax nit ay mbokkam dañ koo seq muy ay jikko yu muy roy ci ñoom ci maam wala ci anam gu mu mën bokkee ñoom ndax wax nañu léegi ne bokk ak mbokk mu baax dana tax a baax moo waral mbaax yi ñu fi jéeñante yépp ci mbokk yi la bawoo kon sëñ xaadim ne na mi ngi sant mbokki omar ak noo bokki ak omar buñ ca bàyyee ko ngir jëkkanteeg waxtu wi nena na itam mi ngi sant mbooloo mi fi teew yépp jàppale omar ci bésam bii ndax sëñ xaadim ne na moom jàpp na ne fii lu fi war moo ko war a def moo war a gàttandu moo leen war a teral moo leen war a tatagal kon ku ci jàpp rek mel na ni moom nga ko defal kon sëñ xaadi na képp ku fi teew di góor imaa ngay jigéen mu ngi lay sant bu baax muy tëji cant gi nag ci jëmmi ji nga xam ne moom moo waral yëf yi digganteem ak Seydina Omar mbir mi law di law di law bi ñu ñëpp jot ci ne na imaam Ahmed sëñ xaadim ne na rëccuwul li mu la doon xame li mu doon jëflanteeg yow li mu doon am amlanteeg yow ndax mbaax lay xeñtu te gis na mbaax ci yow kon yàlla mi nga xam ne moo moom mbaax te di ko téye yàlla na leen ko téyel ba ñu mën koo jëriñoo ndax boo xoolee jataay bi ni mu rafete ni mu taaroo lépp mbaax moo ko waral kon liñ jàngat ci jataay bi ci kaddu sëñ xaadim ne na mboolem xeeti mbaax yooyu jikko yu baax yi nga xam ne ni moom la jullit ñi takkoo moo waral jataay bi taaroo nii kon mu ngi sant bu baax. sëñ bi sama nijaay taala mu ne mbokk yi fi teew El Hadji eh, Ahmed Touré yaag sa mbokk yu tedd yu barkeel yi nga àndal ñëw tey ci dëkk bii di tuubaatul ñu gën caa ràññee suñu xarit bi doon yëkkati kàddu yu sell yi léegi muy sëriñ usmaan sëriñ Ousmane li ak mboolem kilifa yi nga xamante ne ñoom ngeen àndal ñëw tey fii ci dëkk bii dëkk bii nag mooy tuubaatul ñu bari dégg nañ ko waaye xamuñu sax fu mu toll waaye mu nekk dëkk bu barkeel nekk dëkk boo xam ne bi ku tedd ki Seexul Xadim sa maam ju baax ja moo fi ñëwoon ci jëmmam ji sell ji jumaa ji yi ngeen jàkkaar lool mag ñi fi fekkoon wax nañu fa la julli woon rakkaam yu tedd ya hmm. li nga xam ne moom la ñuy wax ci tënk mooy dëkk bii ngeen ñëw tey kii ngeen fekk si ki ko yàlla jaarale ci moom muy doomam di sëñ Omar ñun duñu wax ci moom yéen ñii di ay xaritam nekk moom ca àll ba ginnaaw yéen a ko xam la ngeen xam ci moom moo leen indi fii tey kon ñun duñu wax ci moom duñu wax ci Omar ndax lu doon wax ci Omar yéen xam ngeen ko ba wax nu ko kon li ñuy wax ci bis bi ci seen teewaay bii mooy baayam bi di góor gi taala ak yaayam ji di soxna Nogoy Kan ñooñu lañu xam ni la nekk ci Omar ba ngeen naw ko ba di ñëw moom ñoom ñi ñoo ko ci def wax ngeen fi yett yoo xam ne bu ci nekk ma nga ca Omar te ñoo ko ci def ñoo fexe ba Omar dégg diineem te itam talabal ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslima loolu la ñu jëkk a def ci ci Omar biñ ci jógee ñu yar ko tarbiyo ko ba fu mu dem man faa nekk ñoo ko gën a yaru fuuf baayam bii ngeen gis tey moo gën a yaru Omar fuuf ñaat ñaareel ba mooy liggéey dong la ñu xam moom mii ku ñu teel a yóbbu ci daara la daara jëm doon jànge alxuraan ba mu fa jógee man mii di waxante yéen falaa jànge alxuraan muy sama kër maam di kër nijaayam ba mu fa jànge alxuraan ba noppi dikk daa dem jàngi métier ay doomam yu mag yëpp moom mii moo leen jàngal métier moo leen jàngal métier te métier moomu barkeel na ngir ñii ma tudd léegi muy sëñ Modou Mamoun Mbakke di seen maam sëñ Abdou Khafour Mbakke di sunu waajur ak sëñ Mamor mii fi nekk moom mii liggéey na ci ñoom liggéey bu boo xam ne waa këram ñii de lépp lu ñu am ci teraanga seen baay bii moom walla ma nga ci biir booba oto yombut. màggalu Touba bu bu jotee wala màggalu Daaru Salaam ñun booba ay tuut tànk lañu day dawal otoom bu mag 40 places ñëw gaare ko fii ci buntu kër sëñ bi. yab bagage si sëñ bi ak njabootu sëñ bi yóbbu leen Touba ñu màggali bu magal ga jeexee mu ñëwaat jëlaat leen indiwaat leen fii booba te du ci laaj dërëm lépp àddi yi la ko doon def moom góor gi Talla Ngom mii. loolu man ñun mën nañ koo seede taay ndaw lañ ci moom. te lii may wax ni mag ñii fi des ak ndaw ñii di ko dégg jéppi wuñ ma ci loolu xam nañ ne moom mii liggéeykat la boo xam ne aw ñaqam lay dunde jaamu yàlla dong la dese waaye ku fees dell ak alxuraan nag jukki baa ngi nii ci néegam kon sëñ Talla nee na moom ak waa tubaatul yëpp ngeen fekk si fii tey bég nañu mbégte moo xam ne musuñu ko bég wala boog buñ ko masee bégit gëj na waaye li ñuy dund ak yéen tey ci mooy innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axwaykum loolu yéen moom ngeen di dund fa ngeen nekk Omar loolu lay dund fa mu nekk ba yàlla boole leen ci aaya boobu moo leen indi fii tey jii kon li nu mën a jàngate ci bis bi mooy la suñu borom subhaanahu wa taala waxoon ci alxuraan ya ayyuhan naas inna xalaxnaakum min sakarin wa unsa wa jaalnaakum suxuban wa xabaila waaye li taarafu li ta baatub li taarafu boobu ustaas tey mën naa ni di ngeen ko utiliser di ngeen ko jëfandikoo di ngeen ko jariñoo bis ni tey na ngeen ko daan jariñoo bu ngeen fi jógee day yokku ndax xam ngeen ñu ñu xam leen bis ni tey kon li taarafu waaye ngëneel laa nga ca kanam mooy inna akramakum indallahi atqakum kon mbokk yi Baye Talla nee na sant na gërëm na mi ngi ñaan ci kóllëre gi nga xam ne moo leen boole ak doomam ji di Sidna Umar ba tey ji ngeen bàyyi seen itte yëpp ñëw def seen farata muy ñëw tubaatul yendu si fi moom kontaan na bu baax teraanga ji nga xam ne moom ngeen séq ak Omar Omar wax na ko lépp du jekk di ko wax ci mbooloo mi ndax dañoo wax ne saaboo boo limee saa limee say noon saa boo limee say sopp say sopp ci biir mbooloo say noon yokku saa boo limee say sopp ci biir mbooloo su boobaa say say noonu yokku ndax dañuy wax ne ah man ci ay soppeem laa bokkoon waaye limaa léew ma eh, wax nañ ma ne léegi ci biir waxtaanu sëñ Mouhamadou sëtub maam Jaara Buso may wax ne maam Moussa Ka dani Bamba di Maodo Maodo di bàmba ku leen di féewale xawma looy werde ngir mëti Mbàkke mi ndeyu Ousmane mooy baayu Maodo maa ko xam bamba nga yor aqiqatul mutaara waaye mawdo nga yor sariatu mutaara maam ahmad bamba xaadimu rasul ne fa kullu verdin yuridul murida li hadratallahi walan yahida siwahu intama ila jeylani aw intama li ahmada tijaani aw li siwahuma min al axtaabi is kullum xatan ala sawaabi fa kullum yadxul muridina ila taati rabbihim haysuma jala bil istixamatin fala tusxur abad minhum wala tunkiroon alayhimu awat xaadim rasul moo ko teel a bind loolu moom ngeen di nampatu ko te itam eh, fa tabarakallahu damay wax toujours ma ni eh, maam Ahmad Bamba xaadim rasul ak eh, maam Alhaji Malick si ñoo bokk menn maam Ahmadou Farimata ak Cerno Farimata ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñëpp maam Maaram Mbàkke ibnu Abi Fatim Balla mooy seen maam dëgg nal manaila taxmimil masaya oh, ya way manaila taxmimil masaya loxo yi ci mawdo innal manaila taxmimil masaya wo oh, ya way manaila mbaylin siidi maxna wo oh, yaa woo yaa way maanaay la ku defal ni innal maanaay la tahmimil masaaya woo yaa way maanaay la mbaylin siidi maam Maodo nee na tanaa yeewu leen ñu ne ko Maodo loo yeete tanaabahu yeewu leen ana nooral xat mi lay la kumoo xada la fi ximatin min asaari tuami waaw ana tiru baaxiru xayral buhuuri waaw riiso sajaadaati takriman ala qusami boobu la Seydina Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di feeñ ca rabiihul awal fukki ak ñaar mu ne hee yeewu leen ñu ne ko loo yeete mu ne leer gi mottali trois cent treize ya leer giy mottali cent vingt quatre mille ya leer gi mottali vingt cinq ya alxuraan du tey jii lay ñëw tanaa boo yeewu leen anna nooral xat mi lay lakku moo xadaa la fi ximatin min asari toomi waaw sa kër maam fa la wàccoon sa kër maam sa kër maam moo tax ki leen fi boole tey mooy Seydina Omar yàlla daa dogal mu bokk ci càllala gu rëy fii ci dëkk bii ay maamam ñoo fi teeru woon sëriñ bi ànd ak moom di ko gunge ba bisub tey jii moo tax ki nga xamante ni mooy eh, maam jaare bu sa sa maam xun mun faqiri mooy sàqum ndool yi siitun aqiri sa maam moo dara darajaal gool yi umul masakini sa maam mooy dex ak miskin yi abul yataama sa maam mooy kenuk jirim ñi manaa la samsu diini leeral na njaambur ak bawal ak siin sa maam sigël na càllal ak abibulaay maam balla ay sa wéeru ngën walaay sa maam a tax ba képp ku sëtoo ci mbàkke bu ne juneet yàlla tofal ko barke waa mbàkkeek saa ñàngeek mbàkke bëri leeral na leen ñëpp di dox di waare defar nay bokkam defar aw jaambur defar bawal defal kajoor ak njaambur ña daan ña doon boroomi daara amuñu woon ku mel ne doomi jaara sa maam waatu waatul yëpp seen xol sedd na ci Omar sëriñ bi sëñ bi wax nga ko léegi nee nga bis ki tey dangeen di ànd ak Omar nu ànd ak yéen yàlla ànd yonenti yonent bi ànd ak sëñ Touba ànd Alaaji Malick ànd maam Cheikh Ibra Fall ànd ak gaaskan yëpp ba ilaa xiyaamati kon waaw Pape Ngom ñoo ngi lay sant bu baax Pape Ngom mooy magi xale yi Omar bu ma nee dara baayam ci la bokk waaye Pape ngoom mais mag ju baax la mag ju jubla te dañu ne tegale bu jubee ndab la jiitu moo jub kon Pape Ngom jërëjëf sa baay sant nala la sa sant nala waaye say rakk itam sant nañ la dëkkandoo yi ñoom ñëpp sant nañ la kii nag Makhtar Diouf mii at yee bariwut waaye kilifa la sëñ bi maamam mooy borom daaru salaam kokki sëñ Mor Diouf Ndorong moo Omar bokk ndey mu bàyyi ay itteem ñëw yendu fi maag moom noo jiite woon njàngum kaamil mi fii nu taxaw fi lan doon wàccee kaamil bi ci suba doon leen ko teeroo maag kii ak xale yi ngeen ngeen ngeen ngeen fi yabaloon ñoo wàcce kaamil bi fii ñu ne nañ xaar ba ngeen ñëw ñu jox leen ngeen jàng xatmu bi ndeysaan nu dégg fi nag xatmu bu yàgg lool sëñ Ousmane Male jàng ko mu neex nu lool nu kontaan ci lool kon kii dafay teew teewal fi boppam waaye teewal fi magam ak waa Daaru Salaam kokki ñëpp kon ni jaay taala du ma téye bi muy yàgg suñu xol sedd na suñu xel dal na sama mbokk yi maa ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm te di leen jaajëfal. léegi la ma woo ne ma maa ngi yebal seexu naa mu ñëw jëmmal ñu kii sëñ seexu naa Mbacke di doomi sëriñ Omar Mbacke sëñ Omar Mbacke doomu sëñ Abdou Khafour Mbacke moom la El Hadji Talla Ngom mi tuddee sëñ Omar seenum Omar di sunum Omar. ñu doon nag ñu baax ñool mbàkki mbàkki yu ñu dëkkal fii damay wax ni saa su nekk bu sëñ Tuubaa eh, ci ci waxin bu doon dellu siwaat di wax di vérifier gars yi ñoom bu ñëwee da laan waaw góor waaye du leen di soppi seen doxin nun mbàkki mbàkki yu ñu dëkkal waaw ñoom sel nañu jub nañu yaatu nañu tabe nañu lewet nañu gore nañu doylu nañu li ñu xam ci ñoom yëpp jàpp nañu ni moo nekk ci yéen kon noo ngi daaneel kàddu yi lu ci dëng ci man la waaye ki ma yónni woon muy sëñ taala xolam sedd na yaakaaram itam yokku na bis ni ki tey شيخ تيجاني إمامي كل أحياني فريس الختم أدناني مزيق كل فيضاني فشيخي شيخ تيجاني إمامي كل أحياني ختم أدناني مذيق كل فيضاني فشيخي شيخ تيجاني Cerno jinax dañ ni ko nu kanamu muus mel mu ni jotuma koo xàmmee ndax fan yu daje moo xat jotaay bi xat na xat goo xam ni doy na waar waaye nag aa dafa am koo xam ne nag day jàmbaar ci jàkke yi imaam Ahmadou Touré muy Bilal mii ñaari minute rek lan koy max lan koy may mu wax ci li mu ci wax ñu ñëpp ñu déglu imaam mu baax ñun li mu ñuy baaxi noo ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax a baax di ndog di dog ngant ci jataay bi ak xataay bi waaye nag su fekkee ni da ànd ak sa njaboot e, may waajur ci ñoom yàlla dogal nu ànd ba ñëw fii e, du ma ci mën a bañ a sànni ay kàddu ndax bu fekkee danga nekk ci kër gi sag njaboot say doom di xëy di dem ca tool ya di mbay mbay mu rafet man ngaa bañ a gàddu gopp de dem ca tool ya waaye nag sañ ngaa yor sow jàkk sukkootu yegg ni leen jaajëf e, ba tax na e, sëñ e, Amadou mi ñëwum bi fii ci daa ci Tuubaatul gi di sampub Daaru Salaam du asaar eh, sëriñ bu wax na ko léegi wax na càllala gi eh, di gëm ak maam jaara busa eh, kon loolu yëkkatikoom gi ñëw fii du asaar te fi mu nekk nii boo ko doon topp moom mii tey ñi nga xam ne ay diggaaleem lañu ay xaritam lañu ci waa kër sëriñ Touba soo ko doon lim di nga fa yàgg lool Touba noonu la fa mel feneen nit noonu la fa mel e, wax nga léegi àndub ak e, diggante sëñ Buuba Turi Ture ak sëñ Saaliwu e, seenug jegeñe lool ak seenug laxasoo loolu mën la ñàkk dañoo wax ni ñoom sabëg dugub lañu ñu ña nga àndi woon ca tool ya te nag ñu bokkub teen ñooy laxasooy goj loolu wolof yee ko wax sëriñ Touba Cheikh Saliou yàggul dara bi mu toogee daf ni jox leen ma xale yi ma def ci ñoom la sëriñ bi defoon ca mag ña Buuba Touré noonu la doon dundee moom mboolem koo xam ni kii mbokkam la dem na ba moom mu jël doomam joxe ko mu jàngi kon dañoo bokk ab liggéey moo ko sëñ saaliwu kon loolu moo tax eh, moom ci boppam bi nga xamee ni dem na ba topp pàkkub jàkka ji nga xam ni lu jafe la lool eh, maris ndax ba mu fay ñëw booba fekk na eh, pàkk yu bari pàkk yu bari ñu dëkke leen mu jafe lool mu di ko topp rek di ko topp rek ba nga xamee ni sun borom mii dogal dogal na Euh, mu mu yilif pàkk boobu da caa daal jublu ba mu ca jubloo ba mu ko liggéeyee ba noppi dafa geesu dafa xool kanamam xool gannaamam xool ndejooram xool càmmañam ni nañ ma wool jullit yépp bi jullit yi ñëwee mun leen biñ ñëwee mun ni leen eh, néegu bi yàlla baa ngi nii eh, noppi na fu waay jógee na ñëw julli kon kooka Eh, moom la sëñ amadu mii di roy fa mu nekk jàkka ja boo fa demee danga nga fay gis waa cene ba dinga fa gis waa Touba ba ci man mii Touba laa dëkk maay bilal bi da nga fay gis waa Tiwaawan ñépp ñoo fay daje kon moom mi ngi doxal li sëñ Sidi Muxtaar waxoon ni bëgguma dégg ki Tijaan la bëgguma dégg kii Xaadir la bëgguma dégg ki ñasin la moom ci woowu yoon lay dox kon li nu leen di ñaanal daal mooy eh, moom ak mbokkam yépp sëñ usmaan eh, ku sëriñ ku ku ku Bouba Touré woon la eh, dafa guddi nag yu ci bare bare bare bare mën naa leen ko wax mu wóor leen ni kii li mu nekk nii day loo xam ne lii dañ koo mooñaale dañ ko koo mooñaale kon li nuy sàkk mun nun képp ku fi teew ku nekk noo ngi ñaan nga ñaanal ko mu gudd fan lool eh, fa mu bëgg egg fa mu bëgg yóbbu lislaam ji rek mu yóbbu ko fa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala waaw waa maris gépp ñu ngi leen di gërëm sëñ Ismaayila ñoom ak mboolem lii sëñ bi waxoon léegi rek loolu laa doon moytu ndax wax na ni képp koo xam ni kii daje nga si mbooloo eh, gërëm say soppe say noon day yokku ndax Eh, dañ ni kulim juum waaye déedéet kulim doo matal la loolu moo tax eh, daanaka du ñu dugg ci tur yi waaye ñi ñi dëkk maris jóge eh, ndakaaru ak ñi ne fii ñëpp xam nañu ji koy sëriñ bi xam na ni moom ñëpp la yembale kon ku ñu tuddul itam na la wér ni yaay dëgg bi kon asalaamaaleykum kaddu yi moom mënu woon bañ a ñàkk tabarakallahu mel na ni Baye Tall mi dafa am benn kaddu koo xam ne ñor na ko te bëgg na ko wax ñu doog jublu ci sëriñ bi. kàddu googu mooy kàddu sant rek te di ko ñaanal yàlla def ko mag te wéral ay cëram ndax wax na ni waaw sëñ Mamor mooy rakki sëñ Omar ci ci kër gi ci kër gi. yàlla def nee na mu daje ak sëñ bi bi muy tukki koo xam ne kii ndaw nga dégguloo français yu yu yu dëgër dégguloo anglais. te bëgg a dem bitim réew nee na sëñ bi ni ko yow daal defaral naa la say say kayit yëpp ba mat na fii ma la teg ci avion bi numéro la am numéro baa ngi nii toogal rek fu avion bi teer dana am ku ñëw guidé la teg la fi mu la war a teg ba ba ngay àgg fi nga jëm nee na loolu mënu koo ñàkk feeñal ci mbooloo mi ba ñëpp xam ne eh, loolu ko sëriñ bi defal ci njabootam moom mënu ko waaye yéene na ko kon nag mi ngi lay ñaanal ci barke Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barkeb seex naa Seex Ahmadou Bamba li nga bëgg yow xam nga ko yàlla xam na ko yàlla la ko yàlla defal wasalaamaaleykum wa rahmatullah tabarakallahu mel na ni li ma mbokk mi wax léegi ni ma loo wax ma ko ku daj ba dajatoo